Seneinfo International. Chers internautes de Seneinfo International seneinfo.net euh, bonjour dalee ak jàmm ci li gën a fës ci xibaar yi euh, jeudi euh, 7 décembre 2023. Vox Populi euh, moom nee na les morgues des îles Canaries sont pleines. Les douloureuses révélations de Mame Cheikh Mbaye, président de la Fédération des associations africaines aux îles Canaries. Donc euh, voilà, loolu la journal bi xëy xam ne tey euh, Sayun euh, kii di def benn témoignage ne mon fils est toujours vivant et je m'accroche à cette éventualité qui me permet de survivre euh, ñu des rek ci kii bi ci journal bi ba tey mu ne pourquoi le silence di di fait autant de bruit donc ki nga xamante ne moom mooy Souleymane Ciss de la plateforme Idy Président décode le mutisme de son leader loolu journal bi xëy xamle enquête moom moom dafa ñëwaat rek ah ci kii boobu bor boobu nga xamante ne état du Sénégal amal na ko euh, pétrolier yi euh, mu ne la grogne chez les pétroliers loolu la journal bi xëy xamle tey asa yu ñëwul encore rek si arrestation ki nga xamante ne moom booy booy jinne moom nee nañ arrêté nañ ko fële a hauteur de Khombole moom nga xam ne ne yàgg na nekk si prison bi ñu libéré woon ko donc ki nga xamante ne moom booy jinne arrêté waat nañ ko foofu noonu sa Khombole l'observateur moom dafa def euh, benn interview yaatu defar ko nga xamante ne moom mooy euh, euh, Thierno Alassane Sall nga xamante ne moom moo nekk le président daal la République des valeur moom nee na l'argent pourrit la politique et corrompt les valeurs une partie de l'argent du Covid sera recyclé durant les élections loolu la candidat bi xamle mu ñëwaat encore si la dette de quarante de cent quarante milliards et les de pénurie de carburant loolu la journal bi ñëw xamle aussi si asa yi les échos rek moom dafa titre ne la mise en état terminée à la cour euh, suprême la balle est désormais dans le camp du parquet général donc loolu c'est affaire euh, Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang loolu la journal bi xëy def tey asa une ñëwaat encore rek euh, si la une ne Karim Wade en roue libre Diomaye Faye entre les mains des sept sages donc journal bi loolu la ñëw xëy tey xamle daa saa yu Walf Quotidien moom dafa ñëw sur les tournées mouvementées des opposants loolu la wax mu ne pourquoi les convois sont stoppés loolu la journal bi euh, xëy xamle euh, tey sa une mu ñëwaat rek si euh, beneen fànn muy la maltraitance dans le foyer nee na les aînés et l'enfer de la solitude ñooñu ñi nga xamante ne ñoom moo nekk. Euh, association bu nga xamante moo regroupé mag yi nee daal ñi nga xamante ne mag yi nekk ci kër yi ñoom dañuy souffrir parce que ñoom dañ leen di maltraité donc journal bu ñëw def ci gëstu bu yaatu yaatu def ko à sa une sur quotidien boobu moom dafa ñëw euh, sur le financement des partis politiques nee na Kandji Diouf Wade et Macky parrainent le statu quo loolu la def à sa une donc euh, ñëwaat encore ci les libertés civiques au Sénégal nee na la mauvaise note de Civicus Monitor au Sénégal donc. loolu la journal bi def xëy def tey à saa yu ñu jeexalee rek ci euh, rapport boobu nga xamante ne euh, def nañu ko euh, par rapport à kii aux libertés civiques nee na rapport de Civicis Monitor sur les libertés civiques en 2023 le Sénégal chute dangereusement loolu la journal bi ñëw xamle tey mooy journal l'info donc loolu la xëy xamle tey dans saa yi donc li lañ leen indiloon si lu gën a fes si euh, yéenekaay yi euh, tey euh, jeudi 7 décembre 2023 ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax si teewlu bi te di leen bi ñu ngeen di jàmm. Sene Info International.